ci li ñuy yoon may bi nga xamante ne assemblée nationale convoqué na samedi bi ñu ubbee ñu ñooy ki njëkk déposé li nga xam ne mooy proposition de loi modification code électoral modification électorale bi nag dafay wiise ci li nga xamante ni maanaam moo nekkoon ci révision constitution bi 11 mai 2018 loi numéro 2018 14 sur la parrainage citoyenne li nga xamante ni aussi moom la waxaat ci li nga xam mooy loi bi ñu modifié ko ci li nga xamante ni moo nekk 2023 bi passé muy modification bu mujj bi jëm ci li nga xamante ni moo nekk léegi parrainage citoyenneté plus parrainage de la maire élu ak li nga xam mooy ay député loolu nag bi ñu ko seetee ci modification boobu noonu dañu léegi ci article 57 alinéa 15 et 16 dañuy proposer léegi képp koo xam ni da nga bëgg a jël fiche parrainage dañ laaj caution caution boobu nag ci biir proposion bi dafay nekk maanaam montant boo xam ni arrêté moom moo koy fixé comme ni ñuy fixé caution bi nga xamante mooy participation de élection pour candidat ci bépp élection boo xamante ni dañ si laaj parrainage caution boobu aussi dañuy wax ci biir loi bi nit bul fekkente ni déposé nga ko nga dem jël fil parrainage boo mëtul parrainage bi ñu lay laaj da ngay perte sa boobu loolu buñ ko defee dañu gën a segg ñi nga xamante ni jàpp na ni ñoom dañuy dem rek pour jël fiis wane ni ñoom ay candidat lañ te fekk ni dañ ko jël pour saboter wala pour yàq ndax li ci aju dafa bari tey ñun ñi nga xam dañoo nekk assemblée nationale xam li xam li nga xam moom la ñu wote woon ci loi bu mujj bi 230 candidats yooyu tey bu ñu jëlee seen parrainage ba déposé conseil constitutionnel candidat yooyu benn candidat bu si ñàkk bakkanam Macky Sall day élection yi conseil constitutionnel mooy dàq élection yi ñaari at ba juróomi at. kon yaakaar naa ne loolu dafa sérieux te nit ñi xamuñu ko te cent 230 personne kenn ku nekk kenn xamul kan kan ku nekk lan moo ko dal. kon yaakaar naa ni loolu am na leneen loo xamante ni war nañ ko xoolaat ci biir beneen bi mooy candidat yooyu képp koo xam ni tey dem nga jël sa fiche parrainage ba noppi nga dem déposé conséquence na comme ni ma ko waxee boo génnee àddina conséquence na day dàq élection yi sans délai mën na ko yóbbu deux ans mën na ko yóbbu cinq ans amul limite. le président Ousmane Sonko fan yi si ginnaaw gis ngeen ni ko waa DCI def. sukkandiku ci article 230 231 232 ci code pénal ndax ñoom dañoo jàpp ni ku ñu condamné contumace automatiquement dañ lay raje sukkandiku aussi tamit ci article 28 euh, ci li nga xam mooy code électoral waaye contumace buñ la xasee ba téye contumace bi day jeex te ku ne xam nañ Ousmane Sonko dañ ko téye kon contumace amatul loolu moo waral bi nga xamante ne jëf nañ jëf jooju te jot ndigalul ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur jot ndigal ci président de la république ngir ñu bañ a jox Ousmane Sonko ay fiches de parrainage parce que administration du def lu mu laajut ndigal bi mu demee lañ ko wax mooy dañoo jot suñuy eeraas yi leen a jox fiche parrainage parce que lii ñoom tamit avocat dem fi nga xamante ni fa la mbax na benn muy tribunal de Ziguinchor déposé fa li nga xamante ni mooy pour que ñu annuler loolu yàlla dogal na siis bi nga xamante ne mooy siis ba fay def lu am solo loo xam ni histoire dana ko marqué ci courage am ci détermination am ci wax ngir dëgg ngir yàlla te xam ni lépp day jeex mu ne lii nga xamante ne moom la administration bi def tegul si yoon kon Ousmane Sonko nañ ko delloowaat li nga xam mooy ak ak yelleefam ñu di ko rafetlu bu baax. loolu nag day wane ni ba tey am na ay suuf si fi nekk yu pare pour dox dëgg defal yoon pour que aveniru Sénégal jëm kanam loolu nag bu amee ñu ñëpp tey képp koo xamante yaa ngi woote démocratie si réew mi woote suuf si réew mi yaa ngi jàmbali xam ni suuf baa ngi tàmbaliwaat génnaat di wane li nga xamante ni moom lañ ko doon bàkki loolu nag am na ñu koy rafetlu di wax état nu mu gën a gaawee na jox Ousmane sonk ay fiches parrainage parce que yoon moo dogal. beneen bi di lu taxawaayu ascenseur sur l'état parce que ascenseur sur bu demee tey ba Suisse bi jël décision moom muy contredire Suisse boobu noonu ngir bëgg-bëggu Macky sàll yoolu yaakaar naa lu ñaaw la te ku ne xam na ni ascenseur sur l'état la fi nekkal ndax ñun peuple bi Ousmane sonk day demande sociale si ñun pour mu nekk candidat ndax ñun lu ñu soxla man bu ma dee nekk candidat jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñëpp war nañoo nekk candidat ba ëllëg képp koo xam ne gañe nga danaa dañoo gën diw moo tax nga gañe kon demande social la Ousmane sonk nekk candidat te day nekk candidat par par B pour mu leer Macky Sall du moom mooy téye Ousmane Sonko pour mu a nekk candidat candidat Ousmane Sonko mi ngi aji si peuple bi te lim leen war a defal yëpp defal na leen ko kon peuple boobu nag moom moo si des pour ñoom ñu dellu njukkal Ousmane Sonko ñun liñ si war a def ñu ngi koy def depuis deux mille vingt et un ba tey ñu ngi si côté peuple bu nekk si côté peuple nekk nañ si côté ndax ay gor lan du ñu fàtte démb suñu mbokk la suñu xar la te askan wi ñoo ko yóbbu fi mu nekk comme nit ma yóbbu man fi ma nekk ba ko mu tudd xam xam ñu ñu xam ñu. assemblée nationale en tant que institution ci li nga xamante ni mooy li am ndax assemblée nationale bi ñu convoqué ñun 9h30 fekk nañu fi bi ñu demee. groupe parlementaire liberté et démocratie bi ma bokk président Mamadou Lamine Thiam jiite ko ñu def réunion ci bureau ñu ni ñun ñi nga xam ñoo bokk ci groupe parlementaire bii day am nañ fi ñetti candidat Karim Wade candidat la Cheikh Abdou Bara Dolly candidat la Mamadou Lamine euh, Diallo candidat la waaye comme ñun ñëpp ay góor lañ te ñoo àndoon wutee ndox fii ak juróom benn weer ñun de duñu tàggoo nañu maintenir li nga xamante ni moo nekkoon suñu groupe kenn ku nekk post responsable bi nga amoon ñu bàyyee la ko ba ëllëg lu yàlla dogal ndax kenn ku nekk da nga soxla sa moroom ëllëg loolu moo war a ñu ñu ba def noonu bi nga xamante ni loolu am na man ma dem ci secrétaire général bi fekk fa la list yeewi askan wi fekk bu ma leen laajee ñu ne ñoom ñëpp signé nan muy 53 membres pour yeewi askan wi mais bi loolu amee ñoom déposé wu li nga xamante ni mooy seen biru ndax mën nga déposer li nga xamante ni maanaam mooy ñi bokk ci groupe parlementaire mais bureau bi en général boo ci bëggee def loo xamante ni méngoowul ak li nga xamante ni mooy yoon danga nga koy tardeel te comme boobu ñoom ñi ngi doon waxtaan seen biir te sotteegul moo tax que tardement bi am ci diggante Yewwi Askan Wi ak Taxawu Sénégal ñoom ñoo bloqué Assemblée nationale c'est rapide Yewwi Askan Wi ak Taxawu Sénégal 10 ba 18 ñoom ñoo tax que bureau assemblée nationale taxawul man rus naa wax lu du dëgg parce que assemblée nag bii mooy sama deuxième mandat te xam naa lan mooy assemblée bi nga xamante ni ñi ngi waxtaan ñun wàllu ñu xamal ni waa taxawu senegal bëgg nañ buñ leen génnee ci yeewi askan wi ñu ñëw ci ñun man maa wax ci biir suñu bureau may leen d'accorduma si taxaw Sénégal ñëw guru wàllu sa refusé catégoriquement te dama ko teg si ay ay anam yu leer parce que nit koo àndal ker yeewi askan wi tey nga man koo wor ba ko ba mu lay génne bu ñëwee si yow tam dalay yàqal mooy benn ñaari ma ne duñ fi ñëw parce que tey bi ma bëggee dugg yeewi askan wi Khalifa Sall mii ak Habib Sy ak waa Pire ñoo ma boole ni ma doo dugg yeewi askan wi te loolu askan senegal du ko fàtte te man du ko fàtte duma leen ko baal ba mukk te lii Ousmane Sonko day wane ni la ma ko waxoon ci saalam dëgg la parce que ñi muy àndal bëgguñu ko ndax ñi nga xamante ne bu xeex jotee ñoo war a ànd ak moom xeex ñëpp xalifa Sall Habib Sy Youm bu piir dañoo fexe ñoom ñëpp ñu xàjjale ko ak moom bàyyi ko mu wéet loolu moo war xeex bi ñoom dugaluñ seen loxo Ousmane Sonko wéet fi nga xamante ni mooy ab xeexam lii yàgg nañ ko def yàgg nañ ko togg kon tey bu fekkente ni dem nañ tey ba si maanaam assemblée nationale ay poste ñor leen ngir que seen intérêt bopp ba ñu xool intérêt Sénégal ba ñu xool askan bi amoon si ñoom yaakaar loolu yaakaar naa gàcce la ci li nga xam mooy coalition Yewwi Askan bi mooy coalition boo xamante coalition naxante la coalition boo xamante ni ña fa nekk ñëpp PDS la newoon parce que tey tey di nekk coalition bi yëpp PDS la newoon muy coalition boo xam ni amul benn njariñ bu mu jariñ Sénégalais yi joxu leen benn gëdd ak benn cër parce que mosul dox ci seeni soxla lu dul ay xëccee parce que xëy ko xuloo ak wax loo amul kon yaakaar naa tey Ousmane Sonko jot na nag ñoom ñëpp mu débarrasse ak ñoom jël semaine responsabilité am pour que fi mu bëgg àgg mu àgg fa mais bu yaakaaree ñi dañ koy gën a suuxal li ciy firnde rek mooy ñun bi ñu paree bi ñu jógee pour dox Ousmane sonk yàlla dogal mu génn si kaso bi parce que ñaara maanaam ñii dañuy xeex ci justice ñii xeex si beneen côté bi man en tant kilifa diine ma jëloon initiative pour que dox li nga xamante ni mooy euh, kilifa diine yi pour Ousmane sonk mën a génn ba ma tàmbali ko. mais am na ay nit yu bokk Pastef yoo xam ne dañoo refuser loolu catégoriquement ni ànduñu si te Ousmane Sonko sant leen ko ndax fii recevoir naa fi Cheikh Bara Ndiaye wax naa seeg moom wax naa si xalif général des mourides ak xalif général des tidianes ba nga xamante ni semaine prochaine lañ ko bëggoon a dox mais malheureusement. li may faral di wax rek am na ñoo xamante ni Ousmane Sonko nekk si kaso bi moo leen gënal Ousmane Sonko génn ndax man jàpp naa ne bu ma bokkoon ak moom parti mu nekk situation bi du ma dem jël sama fils parrainage te génnul si kaso bi te am na ay député yu bokk Pastef ak ñi ko jiite ñoom ñëpp dañuy waxtaan ak waa Benno Bokk Yaakaar am na ay député yu bokk Pastef ak ñi ko jiite ñu si bar dañuy waxtaan ak waa Benno Bokk Yaakaar. dañuy dugg seen bureau yi dañuy dugg seen bureau yi di waxtaan ak ñoom bu ñëwee assemblée nationale dañuy tàppanteek ree fàtte na Ousmane Sonko mu ne si biir kaso bi député yooyu fi mu toll nii man maay seen noonu parce que am na si ñoo xamante ni bi ñu duggee assemblée nationale ba tey muy Birame Souleye Diop Abbas Fall gii Marius Sagna duñ tuddanteeg man wax ak waa benn bokk moo leen gën a wax ak man kenn du ma si tudd parce que jàpp na ni man dañ maa war a contrôler wala ñoom dañoo war a ñëw nekk sama kaw. parce que nag man li ma sëñ Touba defal moo ma gën a député te nit ko gëmul sëñ Touba gëmoo yonante bi jàpp naa ne doo ñëw assemblée di ma yilif Birame Souleye Diop bi ñu ko nommé mu nekk assemblée nationale war a jiitu groupe parlementaire bi Ousmane Sonko moom ma woo mu ma dénk naa la Birame lay Diop man maa ko wutal bureau ndax bi mu ñëwee assemblée bureau bi ñu ko bëggoon a jox mooy bureau Mamadou Diop Decroix nekkoon deuxième vice président groupe parlementaire muy bureau bu ndaw fa lañ ko bëggoon yóbbu ndax xamul assemblée bi ma ko gisee ma ñëw ma ne leen fii du bureau groupe parlementaire Birame Souleye nan ko wutal bureau bu mag comme ni nu wutalee yeneen yeneen bureau yi wutal ñu wutal ko bureau génn ki nga xamante ni mooy jëma soirée mi nekkoon euh, ki nga xamante ni moo toppoon ci euh, rapporteur commission de finances ñu génne ko moom jëma soirée ñu dugal fi Birame Souleye man maa def loolu Ousmane Sonko moo tax ma def ko pas moom Ousmane Sonko dafa war a génn parce que fee mu nekk du place am Macky Sall ko génn nu mu gën a gaawee parce que demande sociale la pour mu génn si kaso bi te danaa def tout pour mu génn si kaso bi par A par B dana bokk bu neex yàlla te dana génn incha allah balaa élection yi loolu mën maa ko wax te bu ma ko waxee askan war na nañoo xam li ma wax. li nga xamante ni moo jëm ci concernant mbirum Palestine Israël di ñaaw lu taxawaayu communauté internationale parce que Palestine yaakaar naa ni ñu koy def ñoom ñëpp ñu ñu cell jaaruwul di ñaawlu taxawaayu. union africaine ak CEDEAO ndax heure bii bi nga xamante ni tey ger am na diggante Russie euh, Ukraine ñoom ñëpp tey kenn ku ne yaa ngi doon def ay point de presse ak dagg say avion dem di seeti pourquoi mun ñu ko def Israël euh, maam Palestine mi nga xamante ni suñu mbokk la nekk ay jullit ñu di leen jaay doole te loolu tegul si yoon. kon ñoom ñëpp seen taxawaay dafa dama koy ñaawlu di ko naqalu di ñaawlu aussi taxawaayu kilifa diine yi yi des si dëkk bi parce que kilifa diine. bu fekkente da ngaa nekk kilifa di nga nekkub jullit sa mbokkub jullit di am ay jafe-jafe ak ay coono war ngaa jël say responsabilité ba ñëpp xam ne yow mi taxaw nga si mais gisuma benn kilifa di taxaw ñaawlu tey taxawaayu Israël jëme ko si Palestine ndax Palestine ay ay julli lan ñu néew doole lan ba noppi ñaari bi tooñu ñu kenn Israël jël alalam jëpp ak dooleem jëpp di bombardé bay bombardé bari baytul maqdis tey Gaza tey kenn nekkutu fa daanaka ñëpp dem nan lan fa rey si nit kenn xam nu mu toll mais pourquoi li nga xamante ni mooy corps euh, cour pénal international mais mënut a laasé mandat d'arrêt jëble ko premier ministre Israël euh, kii euh, li nga xamante ni mooy Israël bi parce que jàpp naa ni ni ñu ko def Russie war nañu ko maa def li nga xamante mooy Israël ñett yaawoo kon jàpp naa ne deux fois deux ministres yi am dan ko war a arrêté julli di nag dañoo sonn yéen nag yonte bi waxoon na ko amuñu solidarité jàppalantewul dimbalantewul dimbale kenn koo xam bokkut ak ñoom sax moo leen gën dimbali seen bopp kon tey maa ngi wax Macky Sall ak waa e e na ñu jël seen responsabilité wax ak Israël mu arrêté bombardement yi nu mu gën a gaawee di wax kilifa diine yi nañu yokk ay ñaan ba pare nag génn nag ñaawlu naqarlu li nga xamante ni mooy li am ci li nga xamante ni mooy guerre boobu noonu.